voilà merci beaucoup ami fidèle internaute yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy bàyyi xel à travers Dakar euh, ku baax koo xamante ni dama ko yeb lool waaye tey nag ñu war a seq waxtaan bu yaatu jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di Wally Balago Seck ak euh, dese way juróom bu jigéen boobu nga xamante ni moo di Soxna Jaaga mu sell mi koo xamante ni ak bëggoon xam Mouhamed ci seede yi nga xamante ni moom la ñu wax yaakaar naa ne ci la ñuy dugg ak moom euh, ci waxtaan wi moom Bour ñu ngi lay siyaar bu baax a baax Bour Guéweul jërëjëf am Saliou maa ngi lay siyaar yow tam la la ndokkeel di la jox sa wàccuwaay di nuyu Malick mi nga àndal. di tàmbalee rek fa ñaan tàmbalee <clears throat> mooy di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu di ñaanal suñu wajuru jigéen fa mu tëdd yàlla na ko yërmande suñu borom fekk moom ak kum fa fekk ak ko fekk di ñaanal yàlla suñu baay bu góor bi nga xam ne moo fi des ak suñu tante yàlla bàyyi leen fi waaye nag ñuy tàmbalee di feddal suñu njëbbal ak suñu yaakaar ci Xayri Mawlana Cheikh Ibrahim ibnu Sëriñ Mbàkke ma di la mm-hmm. <coughs> di ko ñaanal sama borom sàmm ko te defal ko yiw barke Cheikhul Khadim ñu gis eh, ki nga xamante ni moo di eh, sunu yaay jaaga génn àdduna wax ju bari trop eh, côté positif ak côté négatif mais bi nga yëgee bala ñoo dugg ci foofu sax bi nga yëgee dese gi naka nga xalaat ki nga xamante ni moo di Wally la fils de waa xam ni ki fi jële woon Seydouna Muhammad mm-hmm. keroog Babacar Sadiq taxaw naan fa man kaana yabudu Muhammadin inna man kamata fa man kaana yabudu laax maanaam ba ca mujjantil ga mu ne laa xayu laa yamuut mooy yéen ñi gëmoon Muhammad na ngeen xam ne tey jóge na fi waaye yàlla mi nga xam ne nag moo sàkkoon Muhammad rey na ko kooku kooku mooy buur bi nga xamante ne du faatu bee layu mi diini buur bi fi jëlee woon Aboubacar Sadiq jëlee fi Ousmane ibn Affan jëlee fi Ali ibn Abi Talib jëlee fi Omar ibn Khattab mm-hmm. tey moo def lii mu def te dara du ko ci fekk xëj na nag fa ñu jëm lañu xamul lu fa ne mhm. bu nit am njàqare ak di jooyoo ak tiis ak nangam nangam nangam mooy fa ñu jëm mooy benn terre inconnue mhm. mooy xamuloo lan la nga fekk boole ko nit ak lu mu miin mhm. tey waali bokk xoolee démb xam ni que il était bien préparé mhm. mooy ñi ko jur yar nañ ko ba mu mën a affronter n'importe quelle situation mhm. gisoo leen ñuy yuuxu di xalangu gisoo leen ñuy yuuxu di saalit li muy métti métti muñ loo nañ ko yàlla mhm. na ga ni trois ans defe ci lay mat ci la ñàkk seen baay weer wee ci gannaaw ñu ñàkk seen mag bu jigéen yàlla ñëw defaat lii moo ko sañ moom rek mooy faal li ma yurid donc lu waay def te newoo ak njabootam yàlla na yàlla ut ci seen bopp te yàlla may leen xolu mun te moom aji dem ngi yàlla jéggal ko te xare ko aljana loolu rek mooy l'essentiel bi mm-hmm. communiquer pour se faire remarquer communiquer pour waale xàmme la bëgg a témoigner ci nit ki nit mais nit koo xamul noo koy seedee jaaga li ci Sénégal yëpp am benn baat la mooy ku baax la woon ku yiw la woon ku daan dimbali la ku daan def ngir yàlla ku bëggoon rasulullahi alayhi salaatu wasalaam la amul ñu doon ñi ma gis ñëpp ñuy wax kenn ku la ni man ak moom amoon nañu relation bu personnelle elle a toujours été une personne très effacée mhm. bi coon flambeau bi di xew sax daawoo ko gis waxuma la ak tey bi fi boroom këram bàyyeekoo elle a été une femme très humble. man li may gis ci moom la à travers son image. man personnellement je ne la connaissais pas. benn yoon laa ko mos gis te matul deux minutes benn yoon. waaye gis naa ci moom ak yiw mooy tey foo ko gis elle s'habille correctement. ba na ngay xam ni kii kat muslimaat la. jigéen jigéenu jullit la. tey li nga mën a gis ci moom mooy c'est une mère de famille mooy ay doomam dañu refléter son image wala am nay sœur ak ni jigéen bëggee àdduna sœur mi yooyu da nga la mës a dégg ci dara seen ndey jooju da nga ko mës a dégg ci dara yàgg ñi ko gis nii sax à visage découverte mën nañu ko ci un an bii la mooy video ba muy ñaanal waali ak di ko gërëm vidéo keroog ba waali di jaay albumam ba ak vidéo bi keroog dëju muumi bi ak xëj na takku Seydina mais Diaga elle toujours été une femme effacée man ñëw naa di jël grand bi ci studio ca kaw grand bi moo wax ma dégg grand bi gërëm ko te yàlla tax te nam ko gërëmee noonu la gërëmee ci kanamu senegal yëpp ndax way na ko aw way way wuriis ne ko boo doon daf ko ni boo góor di jël yoonu suufiyanke lan lay firnde ci moom mooy mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi yoole niveau di spiritualité ak jaamu yàlla ak imaan gi gi soxnaam si nekkee te mu xam ko moo tax mu ne ko boo góor di nga jël yoonu sufiyanke nga may naari góor ak i fa loolu sori na mhm. da ko nangul nga ma mhm. ni fariñ nangulee boulangerie wax ju xóot la wax ju xóotu xóotu xóotu xóotu mhm. xóot mooy nooy nga mhm. lewet nga mhm. déggal nga ma mhm. noppal nga ma baax nga suturaal nga ma may nga ma jàmm moo taxit ca woy wa mu ko mu ne ko eh, eh, eh, yàlla na nga jur ay naaru góor la ko wax ak ah, ak tànk te yàlla defal na ko donc ku ciy wax na nga wax yiw mbaa nga noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ab jullit balaa ak njullitam di wér mooy ki nga xamante ne ay mbokk jullitam mucc nañ ci aw loram mhm. surtout mooy làmmiñam mu dellu ni jullit ak njullitam di wér fekk bu bu day buy wax na wax yiw wala mu noppi et puis ñiy wax est-ce que ñu ngi xalaat ki ki fi jógee xamul luñ ko dara li ñu xam ci moom moom nga xam ci moom mooy mooy que daan dimbali ay néew mhm. ci suturaal leen mhm. xotti leen ay càngay mhm. daan na taxaw ay néew ci doole ay way feebar loolu lañu xam ci moom te loolu Sénégal yëpp ci marché donc keneen ku mën a jël sa responsabilité bëgg am leneen looy wax ci moom di ko fekki mu yàgg ak mu yéex te il faut que les arrêt se ces genres de scénario là uniquement pour se faire remarquer wala wax rek pour wax da bëgg wax rek pour wax li ngay wax wóoru la xamoo ko fekke woo ko xamoo nit ki soxna si dem nga xool bésam bii xam na julut xàqan la barke xaadim rasul bésam bi sedd na rafet na te yiw na dama def benn remarque maa ngi koy wax euh, ambu people 221 euh, yaakaar naa soxna si dimanche xaw ma lundi la génn àdduna mardi mercredi jeudi am na ci jour boo xamante ni dafa xëy toute une journée niis ba nii may wax ak yow gisuñu jant ma wax ko ma wax ko benn wax ma ni ko xaw ma ma jaaga lan la ci sunu borom mais nit ku amoon yërmande ci nit ñi la. non elle a été une loolu mooy dëgg ci jikko. ak ci doxalin. xam nga nit ki moom digganteem ak yàlla kuru yàlla moom xaju ci. waaye alaaka ngay wax yow nit ki ak li nga ni ni ngay jànge l'image de la personne. Mm-hmm. bésam bi yiw na taaru na. Mm-hmm. tey da xool lafa fa daje yëpp. am na ñoo xam ne mosuñu gis xamuñu ko sax. am ñoo xam ne dañu ñëw rek uniquement par soppalu guñ ko soppalu woon. Mhm. bëri na fa am pagaay. Mhm. am na ñoo xam ne Waly Seck yëkti leen. déedéet Sina Seck yëkkatiwu leen. Mhm. Acharo Seck Mohamed Seck yëkkatiwu leen dañoo ñëwoon bi wajjilaahi taala. mooy dégg naa soxna si kër da nga daan gis ni sax. bu bu solo bu toog da nga gis ci moom jigéen ju am personnalité. jigéen waaw non non surtout la personnalité d'une femme. mooy bu toogee ci mbooloo du bajjantu mhm. du du wax ca kaw mhm. du def ay manières mhm. elle peut rester immobile tranquillement pendant quatre heures loolu mooy nit donc nañu ko ñaanal yàlla euh, mais hmm. ci ay affaires yoo xamante ni euh, dugg nga ci sànq sax <laughs> mais dañ ciy ñëwaat tuuti ay maam yu génn euh, taxaw def vidéo naan soxna si bañ koy jël est-ce que génnoon na àdduna est-ce que soxna si bu ñu koy sang duñ gis ah, dina dinañ sang néew sax muy tisooli yooyu kàddu yu ñaaw yoo xamante ni Sénégalais yëpp a ngi koy naqarlu ci waay mën waay maa mën yi. yooyu moom mën a wax la ak mën a fen ak dëgër fit. Mhm. dëgg yàlla yonent bi a wax ak mën a fen ak dëgër yàlla fi muy roccee ruwam ci jàmm bi moom yàlla ab dogalam rek moo fa sës te moo fa ne. gars yi nag il parle uniquement pour se fair du buzz. waaye mhm. buzz boo xam ne ci ki nga koy def ab néew la te yow mii di nga dégg néew bi da yàgg rek donc yooyu ki ko wax wax ju ñàkk fayda la wax wax ju doole di man mii nawoon naa ko de par son image mhm. mais waxam jooju vraiment ça m'a ça quoi parce que c'était te une insulte quoi mooy wax jooju du sax wax nit mhm. amul bopp amul génn wax ju ñàkk xorma la wax ju ñàkk teggin la wax ju salte la wax ju soof la te du moom rek sénégalais moo bindoo noonu léegi Abou Saliou dañu xëy rek bind ci Abou Saliou téeméeri nit commentaire seere la loo loo xamul ci TikTok beeg ci YouTube beeg ci Facebook beeg ci Instagram beeg ba ci bala ciy defal live sax yow mhm. waa diggante Abou Saliou ak boromam ci xaj li ngay def bu neexee yàlla ak bu ko naqaree moom mooy yàlla. adduna bi yëpp mën nañu marché tooñ ko ñëw ba ëllëg yomal xiyaam mu ne tooñ ngeen ma gars yi ne mu ne yàq liggéey bi suuf ñu waa waaw mu ne leen baal naa dem ngeen àjjana ko ci mën dara. bu ñëpp maase woon di def seen i ibaadaat di dimbal leen te rafetal biir suuf taaral ko dekki ñëw ci kanam mu ne li ma leen santoon lépp def ngeen ko ci ni ñu ko bëggee ci ni ma ko bëggee ngeen waa mu ne yéen ñëpp safara koy contesté donc nañu bàyyi yàlla ak jaamam ñi mhm. mais le Sénégal léegi à la culture de wax lu ñaaw de xaste de fen de wurut de wax lu la wóorul da yàq as gor de wili pande as gor ba noppi bëgg a làq sa bopp buur ba tey ñu ñëwaat foofu euh, gis nañ monde musical euh, gis nañ aussi tamit nit ñi nga xamante ni ñoo ŋànk showbiz bu jafe-jafe yu mel ni amee wala bu tiis dalee ci kaw artiste du ñu xàmmee ma Samba du ñu xàmmee ma Demba du ñu xam ba xam problème sax am na ñu gis taxawaay bi nga xamante ni moom la àdduna wër nga këpp taxawoo ki nga xamante ni moo di Wally Ballago Seck. waaw mais loolu mooy li war dafa am ku ma laaj léegi ne ma ku ma ni waaw Youssou Ndour dem na ma ne ko bu deful loolu lan la war a def. Mm-hmm. Youssou Ndour Wally Seck <laughs> doomam la. Mm-hmm. Mm-hmm. Youssou dafa fekk démb fekk tey. kenn mësul ko dégg ci làmmiñam mu wax. jëmale ci waali lu safaanu waali it kenn musta dégg mu wax ci Youssou ba wax lu safaanu man laa wax dem naa tabaski ànd ak salaam jàllo kër mer nday soxna mbuub mhm. keroog j'avais en face de as gor maire bu baax maire mhm. bu yiw maire mhm. bu bëggul rafet keroog laa ko mës a gis ma dégg ko muy témoigner ci Mapenda Seck mi coon bokkal ndey ak baay keroog dama dama jooy xoolal ku seeg sa doom bu jigéen ba xëy tàggoo ak moom des années après ñu tudd ko jotaay bi nga ne ah ak baax ak dis gor ak a yiw loolu mooy mbaax yuusu donnu leneen lu mbaax fekk fi leneen lu dul mbaax il est le premier ministre sénégalais bi yëkkati flambeau Sénégal à travers le monde entier. Mhm. bu deful lim def démb lu muy def Sidi Diop bu def lim def démb lan la war a def mhm. Matar Diop suba teel nee na dina lakk ñu bari barki Serigne Mbacké Madina dina lakk ñu bare bare bare ñu ngi koy toftal ay mbir di ko jiiñ di ko waxal te billahi ñu ngi koy tooñ man de sama xulaay taala lay wax nit ku baax la ku gore la ku yaatu la ku yiw la ku mën a dimbaleel te ku bari yërmande la billaahi wal kitaabi waali mii tey ñu ko bëgg a jël moom dóor ko ci kawam billaahi wallahi tallahi waali du rey sax melentaan il a un cœur d'or ñoom ñaar amul benn benn benn benn lu ñaaw lu ñu seq gaa yi jàmb rek ku nekk di wax rek te li gën a bon ci àddina mooy féewale ay gor féewale ay nit lii tey ñu nekk muy seen business lu mu bari bari bari ak lu mu néew néew fii la yem amul solo poñituk àddina rek la moo tax man la kuy wax dangay wax yiw maa nga noppi ci diggante xale yi ñu ne kii moo doon feccal kee kee lay feccal lan mooy fecckat mooy lan kii moo doon tamal kay tey kii lay tamal et après ne leen yàlla may dimbali leen ba ñu mën a dund à travers leur musique dundal ci seen i njaboot. ña nekk seen groupe yooyu di liggéey am lu ñu dundalee seen njaboot. mais détail yeeg wax jeeg mbele mbele coow leeg nangam nangam amul bopp amul gént bés bi démb wane na ko. Mhm. booy tey képp ku ci nekk la nga jàppoon da nga ko bàyyi. tey ku ci nekk ci ñoom bi nga yëgee nouvelle bi sa xel ci ci wàllu sek lay njëkk dem mhm. da ko yërëm donc lii daal waali démb ñoom ñu natt ci seen bopp ñoom bu ñu ko yemale démb ci bés bi ñoom ñëpp bu ñu ko yemale ci bés bi nañ ko ànd xam ni tey bés bi am demb tey ba ñu ànd ñoom ñëpp tey booloo taxawante mooy mooy bésu dëgg ngala bu ñu jugee ci lii boo amoon lu leen boole wala lu leen yàqal nañ ko seppi teg fële te xam ne ñoom ku ci nekk li ngay def mën nga ko def te du yàqal sa moroom dara. Euh, quel conseil donnerais-tu à Wally Ballago sekk parce que euh, xale la boo xamante ni mi ngi ci yoonam di dem euh, ñàkk na way juram ñàkk magam boo xamante ni dafa sasoon ci moom ñàkk wéeru waayam pour mu retrouver waat li nga xamante ni moo di force du yomb. qu'il soit fort c'est un homme. Mm-hmm. te il sait que murit sadix la mm-hmm. te lisaay yaayam da ko doon jàkk na ko di nga jëng mais dool daan mm-hmm. wax boobu ça veut tout dire. wax bi nga doon koo xamante ni da am foo teg sa wàjjur sa waaw dama xam ni euh, euh, yaay rek mooy yaay. Mm-hmm. leneen lu dul yaay du yaay. billahi wal kitaab le boy je l'ai vu hier j'ai benn douleur bu profonde nee naa guddi démb mooy guddi gi njëkk. ki nga toogee sa digg saal xalaat na sa yaay nga ci janaasa yow fii tëdd te mënoo ci daal. mënoo dem wàq ko sulli. mënatoo ko indi. te fa mu ne mënoo faa fanaan lu metti la mais qu'il soit fort xam ni il doit porter la flambeau de la musique sénégalaise partout dans le monde dafa war a takk ceinturam je pense qu'il a compris. beaucoup de choses. Mm il doit encore comprendre beaucoup de choses. À son li ko yàlla defal ak lim mu ko teg il doit comprendre beaucoup de choses gën a takk ceinture mm-hmm. nekk ca la mu nekkoon ci lu baax yokk ko gën a yokk gëstoom ak liggéeyam bu ko kenn bàyyiloo liggéeyam la c'est son gagne la musique sàccul fenu rayul mm-hmm. mu ngi dund ba di ci dund ay gor na continuer yoonam xam ni tey wéetul parce que il a ses frères et ses sœurs ndeyam am na ñu mu fi am na ñu mu bokkal ndeyu ndeyam mu ngi dund baayam am na ñu mu bokkal di ay baayam na na na na gën a góorgóorlu jël famille ndeyam ak baayam taf ci wetam uuf ay rakkam xam ne tey mooy seen ndey mooy seen baay. waaleykum salaam xam ne tey mooy seen yaay. mooy seen papa. rakam yooyu te dañu war a mën a gis ci moom kinne gis ci moom jaaga moom moomu tey rakam yooyu ku mu ci xool ne gis ci ñoom à l'image de leur père. à l'image de leur man moom lay wax suma rakk yi nee leen kenn mënu ma def lu ma naqari kenn dara diisul ci man. dara mettiwu ma. dara du ma merloo xamul tax sama image yu yaay laay gis ci ñoom. moom rek laay xool ci ñoom luñ ma def baax na. donc mbir mi loolu la mhm. ñu ngi ko koy jaalewaat mhm. di ko jaale marine képp mhm. waaye di ko jaale bokk yëpp di ko jaale réew mi jaaga jigéen ju baax la woon jiw la joo xam ne tey euh, démb lañ ko ci tey la bésu soxna jaaratullahi mariamu di ñaan yàlla barkab soxna si yàlla na wër réew mi barkab soxna si yàlla na ko yàlla na ko ràmm ndax barkab soxna jaaratullahi attin na lépp atte na jigéen ñëpp sax laay wax donc euh, ñu di ko ñaanal yàlla di wax jigéen ñi nañu jàngee ci moom de par sa discrétion de par sa modestie de par sa simplicité de par sa générosité ak li ko yàlla mayoon ci mu nekk une femme pieuse mhm. une femme pure Abou Salim mhm. kontaan nañ ci kàddu yooyu nga xamante ni moom nga yëkkati jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di Wally ko Seck ak toute sa famille euh, wax nga wax ju am solo fa ñu tëjee mooy guddik euh, soxna jaaratula moo nit génn jigéen gu am màggal gi euh, dañuy gis nag Sénégal bu ñu jógee ñu naan soxna jaara référence la te ñoom ci Nicki Minaj la ñuy xool ci Rihanna la ñuy xool ci yeneen ak yeneen la ñuy xool Aya Nakamura nanu jàpp dëkk bi réew mi laa wax am na jigéen ñu baax am na jigéen ñu tedd ñoo xamante ni référence foofu la ci ñoom la commencé te ci ñoom lay jeexe yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi di ñaanal Wally ko Seck yàlla na ko yàlla gën a may xolu ak njaboot gi yëpp ci barke rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam